daa leen ko naa ko wax di ngeen am da nga am taw taw fex rek ñu ko may xaas la ñu am ñoom ñun fekk nekk nekk si liggéey xas nekk ci xas na yi xaas la ñu am xaas la ñu am bu wér wér wér wér yoo ne taw bi leen par dañ ñee te ngeen dund ci fàggu ko bale xaas xaas ngeen am waxuma taw fex taw fex ku bëgg sëñ Tuubaa am na waaye ñun xaas ngeen am أبقى سلامي الذي لي قادا بدل شيء بردا فانقادا هدية مني إلى خير الورى صلاح عليه من هدى وصورا مد يدي لخير من قاد المنى لي بلا أسن وكل أمنا asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk ñu baaxoo di ñu topp ci seen xasida minanul baaqil xadim fi muxjisaati raqil maqdum noo ngi del siwaat ci kàttanu yàlla di ko ànd ak yéen bu ne waxtu jot cër bi démb ñu daanee woon ci taslimu baaxin laa yasaalu akrama xalal la si liye yuwadi karama ba léegi rek sëñ baa ngi di nettali di waxtaane boppam muy xéewal yi nga xam ne moom la ko yàlla defal te lépp mu koy nettalee ci biir xasida gi di wan ne yàlla mooy ki ko defal ndax démb fu ñu daanee woon rek mooy dafa waxoon ne musalug yàlla muy aji des yàlla mi nga xam ne du dëñ mukk di aji tedd yàlla nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne yu liya di karama maanaam dana jëmale ci man mboolem tiraange yi nga xam ne fi'lu mudaari wax na ko def yuwadi waxul yuwadi naam mu ne yuwadi fi'lu mudaari'o maanaam day sax dàkk di joxe tiraange yi di ko jëmee ci jëmi sëriñ bi radiyallahu anhu tey ñu war a dalee fii nag muy abqa salaama yi la si li xaada baddala say in biri daa fan xaada ba léegi rek mu ngi sant boromam tabaaraka taala ci may yi nga xam ne moom la ko defal ak nattu yi nga xam ne moom la ko tegoon ba noppi nag dindi nattu yëpp ba noppi nag léegi nag tabaarikallah di ko commencé nag di ko indil ay hëddee yoo xam ne yëpp ay xew lay nekk mu jëm ci sëriñ bi radiyallahu anhu mu ne appa gën caay yëkkati muy gën caay des salaama yi dolli teral ak dolli wóolu foo gisee salaama yi rek mooy salaamaan rek la ci jublu taxrib la maanaam da koo boole rek moo tax mu ne yàlla na nekk ci yonent bi ab xaa gën caay yëkkatiku ab xaa gën caay des salaama yi dollik teral ak dollik wóolu allati yàlla muy def lool mooy allati mooy buur bi nga xam ne xaada womat na lii jox ma man jëmmi sëriñ bi baddala wettee say in ay mbir say in ay mbir maanaam daal tabarikalla na léegi nattu yi doo ko wettee ay xéewal ah bu ma ko doon firi daal mooy ci gàttal nattu yi da ko wéttee ay xéewal nag di ma ko jox moo tax mu ne ab xaa gën ci ay des salaama yi dollik teral ak dollik wóolu yàlla na ko yàlla sott ci kaw yonent bi alla si yàlla mi nga xam ne xaada wommat na moom yàlla lii teg ci sama loxo man ahmadul xadim baddala loo baddala loo xam ne ak wettee la baddala wettee say in ay mbir wettee ay mbir maanaam wettee musiba yi wettee nattu yi léegi nag mu di ma ko sotti nag di ma ko defal ay xéewal baddala wettee zayin ay mbir nga xam ne mbir yoo xam ne yëpp lam jub rek mooy natt yi ko yàlla tegoon léegi nag baddala soppi na ko nag léegi di ko indil ay xiwal moo tax sax gis na gis nga gën na ko feddali mu ne baddala wettee zayin ay mbir biri daa ci ngërëmam moom yàlla fan xaadaata mu dal di wommatu nag kon nee yàlla mooy ki ma wommatal tabarika la wettee ay mbir te mooy natt yu ma tegoon léegi dama ko wettee nag ay xéwal waaye nag biri daa ànd ko ngër mandeem waaye ba mu ko defee nag tabarikalla fan xaadaa mu dal di womatu may yëpp léegi womatul womatu di ñëw ci man ngërëmal yàlla yëpp léegi womatu nag di ñëw ci man may yëpp léegi womatu nag nga xam ne womatu coogru ci la ñuy def nga xam ne na ma leen ko waxoon rek suñ tubaab dafa bëgg nuun ak mu taawaa moo tax bu yàgg ba léegi nuun mu taawaa rek lay jëfandikoo ndax loolu dafa dafa dafa fës ci mbindam nga xam ne daanaka man nga ne li ëpp suñ tubaab rek moom moo koy di bindee li ñuy wax nuura mu taawa nga xam ne moom bu soxlaa dara ci yàlla loolee moo yëg ni sëñ tubaa soxla na ko mu bàbbee ko fa mu nekk ñëw laata yàlla di ko yebal laataa yàlla di ko yebal day yëg ne sëñ tubaa mii bëgg na dara rek may la sëñ tubaa bëgg jëmi bopp moo yëg ne sëñ tubaa mii kat bëgg na ko mu daw sil bopp ñëw ci jëmi sëriñ nga daw ci moom dégg nga lu wax fara li nas ni wala nasri kullama fara ilayhi l awliya ul ulama nee ne maanaam lépp lu borom xam yi doon wuti ci aw yiw ci lu nee na loolee yiw wóog moo yëg ne borom xam-xam yaa ngi koy seet mu daw ñëw làqatu sama xasida yi farra li nasmi wa li nasri moo moo daw nag ñëw làqutu ci sama wisari ak sama wëyi fara li nasmi wa li nasri kullama fara ilayhi awliya ul ulama kon suñu tubaab mooy kenn xamul moo tax mu ne allati mooy buur bi nga xam ne te mooy yàlla xaada wommat na lii jox ma baddala wettee say in ay mbir te mooy wettee musiba yi muy nattu yi ay xéewal waaye nag birit daa ànd ko ngër man dem waaye nag fanqaadaa boo ko defee nag tabaarikalla xéewal yëpp dal di womot nag dal di may dikkal mu ne hadiyatun minni ila xayril wara salaaha alayhi man hada wasawara mu ne hadiyatun samay hadiyaay tagg mu ne hadiya nag léeg-léeg mu tudd hadiya waaye da cee jublu xam ne dafa bàyyi ko ci moom benn mu jëm ci yàlla benn mu jëm ci yonent bi wala léeg-léeg mu tudd hadiya joxam xam day bàyyi ko ci yonent bi ñëw ci moom wala léeg-léeg benn mu tudd hadiya hadiya joo xam ne day bàyyi ko ci yàlla direct ñëw ci sëriñ bi waaye hadiya gi nag mi ngi ci jublu tagg yi muy tagg rasulullah alayhi salatu wasalaam nga xam ne dafa xaajale at mi juróom benn weeri julli juróom benn weeri tagg yonent bi léegi nag hadiya yu muy jox yonent bi moom lay wax nag te muy hadiyaay tagg lahoo kullahaa min hadaaya madi mu ne hadiyatun samay hadiyaay tagg min nii bàyyeekoo na ci man ilaa xayri lu war a jëm ci ngën ci bindeef gis nga ëddee yi nga xam ne moom lay tagg maanaam li muy tagg yonent bi ay hëddiya la koy tuddee ndax yonent bi loo ko mën a jox ci hëddiya lu dul tagg rek maanaam tagg moo ko gënal ci lu ne hëddiya joo ko mën a jox rek maanaam nga di ko tagg nga di ko tagg hëddiyaay tagg moo ko gënal hëddiya ju ne moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax tagg yi may tagg yonent bi da koy tuddee ay hëddiya yoo xam ne day bay ko ci moom mu di ko jëmale ci yonent bi alayhi salaam nga xam ne lépp rek ay mbégte la koy mu ne hëdiyatun samay hëdiyay tagg mi nii bàyyi koo ne ci man Ahmadou bàmba ilaa xayril waraa ne coow du jàdd fenn jëm ci ngën ci bindif xam ne du jàdd fenn coow bi ni ilay xidmatun xat laa sama rawdatoo ilal xiyaami asamat nee na de bàyyi koo na ci man ay liggéey yoo xam ne ay tagg la waaye nag dañuy bàggante diggante raw doom ba ak diggante màkkatul mukarama duñ jóg foofu mukk tagg yi foofu rek la ñuy wër bis bu ne dañ siyaar ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam bis bu ne rek dañ siyaare ji yonente bi alayhi salatu wasalaam tàggam yi mi nii ilay xidmatun xat laa samat waaye rawdatuhu dafay tuqu ko daam ba ilal xiyaami osman ba keroog bis pinc moo tax ma ne hëdiyatun sama hëdiyaa tagg mi ni bàyyikoo na ci man ilaa xëy na war a jëm ci ngën ci bi def nu mu ko soppee nag te bëgg ko lool moo tax saa yoo xamee ne junj na yonente bi rek fokk mu julli ci moom bala muy jàll mu ne salaa yàlla na doolu xéwal moom yàlla alay ci yonente bi kan yàlla mi nga xam ne xaddaa jubal na ko waaye nag wasawaraa mu mellal koon ni ko nu ko neex nga xam ne ci ci jukko ci melo ci taar yàlla moo def noonu yonent bi nu ko soob rek wasawaraa moo ko mellal maanaam posé na ko maanaam mellal mellal ko mellal boo xam ne tabaarkalla dafa xool nu ko neex rek mu bindee ko yonent bi alayhi nga xam ne xalima gum bi la yonent bindi ci kenn moo ko doon misaal ndax dañuy wax ne taar bu doon téeméer la 99 yonent baa ko jël benn bi yonent yàlla Yuusufa ko jël te pour nga mën a xam moo tax mu ne salaa yàlla na doolu xewel moom yàlla ali ci yonente man yàlla mi xam ne haddaa jubal na ko mooy jubal na yonente bi waaye nag wasawaraa mu melal ko nu mu ko soobee mu gën a taaru gën a mm, rafet melo gën a rafet jukko ci mboolem bindi fi léegi nag mu indi bay bu xaw a rungee xaw a naqari firi te mooy maddu yëddi li xayri man xaadal muna liya bila asan wa kulli amana sëriñ tubaa nee na maddu yëddi maddu maanaam fexlu soxi la mu daa ay yi maanaam maddu dafay wan ne lii daal bu ma ko defee ñàkk fulla la ñàkk fulla la boo bëggee lekk mu jox la nga lekk boo bëggee naan mu jox la nga naan moo lay xottul yére te bu la yónnee nga bañ bu la yónnee nga bañ loolu jaadul xam nga ne koo xam ne loo bëgg mu defal la te bu la yónnee nga bañ mënul laa yónnee nga bañ kon kon moom moo lay jëriñ waaye jëriñoo ko Sëñ Tuubaa nag noonu la mel yàlla moo tax di tàllal loxo ku dul yàlla kooku mosut koo jéem a ni يجي بمغن كريم نافع الزمد لا لدراهم taati min su lay tiini mu ne di tàllal sama loxo nga xam ne tubaab bi moo ko doon moo ko tàlloon xaalis nan ko xaalis bi moo gën sa yàlla ji ngay jàmm sëñ tubaab ci la ko dóoroon euh, ci la jëloon xaalis bi dóor ko ko ci bopp bopp bi di nàcc waaw nee na man du jël sama loxo di ko tàllal kenn ku dul yàlla waaye nag du ma tàllal kenn ngir ak dërëm wala may tàllal buuri adduna yi ñàkk solo yi nga xam ne gis nga nu mu leen tasxiiree min su lay kii bi buur yi ñàkk solo yi du leen tàllal sama loxo mukk wala dërëm yu nekk ci ñoom yàlla rek lay tàllal sama loxo moo tax mu ne maddu maanaam ñàkk fu la ko def daal maddu tàllal yëddi sama loxo li xayri man jëm ci kudul buur ba nga xam ne te mooy yàlla xaada wommat na almuna xéwal yi te mooy li ma mbébétoon muy xéwal yi lii ma te mu mu jox confiance kulli sama lépp mu wóoruloo sama lépp bilaa asal ci lu dul benn lor allahu akbar nee na maddu tàllal yëddi sama loxo li xayri man jëm ci kudul buur ba nga xam ne te moo yàlla xaada moo wommat almun naa la mu doon bébét mooy xéewal yi lii mu ñeel ma waaye na wa am naa mu jox confiance mu wóoluloo kulli sama lépp bilaa asal ci lu dul benn lor na kon dangay ngay suuf nee na lillaahi ñeel na yàlla dong dong dong dong li la ñëw xa li lañuy ñëw xasru ci bayaan lillaahi nga xam ne jiital gu ko jiital wan na yàlla rek la lillaahi ñeel na yàlla dong dong dong dong dong dong dong yëddi sama loxo tàllal sama loxo fii daaray ni ci adduna ak alaxira waaye nag bil yi ca dara jaay aji far kiifir ji nee na daal tàllal sama loxo jëm ci kudul yàlla mi ma jox xéewal yi ba noppi wóoluloo sama lépp def sama lépp sécurité mu am sécurité ba nag moo mat xéwal yépp jox ma bu fekkee damay tàllal loxo yàlla rek mi ma defal loolu moom rek lay tàllal loxo waaye du dem di tàllal loxo ay tubaab ak ak ak ak yahudi ak nasaraan yi leen tàllal loxo mukk ki ma defal lii daal moom rek lay tàllal sama loxo moom moo wóoluloo sama lépp jox ma confiance waaye jël xéwal yëpp womat ko teg ko sama loxo moo tax mu ne lillaahi moom kott kott kott yëdd yi moom lay tàllal sama loxo fii daare ni adduna ak alaxira waaye nag ma di ko defee bil maa yi ci daraja yi kañu tànn ka ci darajaay ka ñu tànn ka ci darajaay aji far kiiféet ji ndax moo waxoon ne man maay almaax yi ndax ci man la yàlla di fare ay bakkaar ku yàlla di bindal tiyaa ba sama dara ba sama barki ci li lay bindalee tiyaaba waaye ku may far sa bakkaar itam sama daraja lay xool far sa bakkaar moo tax ma ne lii daal la yàlla dong dong dong yëdd yi tàllal sama loxo fii daarin adduna ak alaxira bil maa yi ci darajaay aji far kiiféet ji waaye nag saa taq yu di may borom ak tënkuwu nag bi ak bëri yàlla li gën a màgg di na nag léegi ngërëmal yàlla nga xam ne ngërëmal yàlla tabaarkalla mooy li gën a màgg ci mboolem loo mën a gis rek ngërëmal yàlla mooy li gën a màgg léegi nag dangay jël dangay da ngay ñëw ne asunuhu man suñ tubaa wóor na ma cooy donc fi leen jottale maanaam asunuhu wóor na ma péng fii safari sama tukki bii waxadari ak sama teew gii te euh, teew ci dëkkam mi maa ñu wóor na ma péng na wuutee wut ak rida al muddari maanaam ngërmande kojuk ba nii mu daal maanaam daa asunuhu wóor na ma péng fii safari sama tukki bii waxadiri ak sama teew gii te mooy sama ñàkk tukki mi maa yuqalifu moo xam tukki géeg teew géeg yépp woor na ma péng ne mi maa yuqalifu wutee wutag rida al mudari ngër mande ko ba ni mu dar mu dar maanaam maam la ci maam yonente bi alayhi salatu salaam comme ni nga waxee ne haashim xuraysin véoru nadru noonu nga koy toppee moom it mu dar maam la ci maam yonente bi alayhi salatu salaam kon na ma péng sama tukki beeg sama teew yépp ne wutewut ak yonent bi wutewut ak dara loo xam ne ngërëmal yonent bi la maanaam def ma loo xam ne dafa juyoog ngërëmal yonent bi def ma loo xam ne dafa juyoog li yàlla digle te li yàlla digle mooy li mu digal yonent bi alayhi salaatu salaam nee na sama tukki beeg sama ñàkk tukki beeg yépp ci yem nag lépp dafa dëppoo ngërëmande yi dafa dëppoo ngërëmande yonent bi waaye wutewut ak ngërëmande ka ba nii mu darki kon dag naan maddu tàllal yi di sama loxo jëm ci bu jëm ci fudul buur ba nga xam ne xaada man na almuna xéwali lii ñeel ma bilaa asan ci lurul benn lor waaye nag wa am naa mu jox confiance mu wóoluloo ku li sama lépp nee na lillaahi ñeel na yàlla moom kott kott yët yi tàllal sama loxo fii daarin adduna ak alaxira bil maahi ci daraja aji far kiifir ji waaye nag saa taqu yu di may borom ak tënkuwu nag bi akbar ridwaani ci ngërëmal yàlla li gën a mag ma tënku ci nag waaye nag asuro man suñ tubaa wóor na ma fii safari sama tukki bii ma nekk wax dëri ak sama teew muy sama ñàkk tukki nga xam ne barab bi mu toog lay wax waaye nag mi euh, wóor na ma péng ne bi maa yu xaalif wuteewut ak rida al mudar yi ngërëmal koju ba ni mo daagi lii xaada bil muxtaari rabbi kullama salabtuho maharrida musallama ba léegi rek mu ngi jàll ci sant yi ndax xasidi gi lépp cant la amul loo xam ne duut cant lépp day waxtaane boppam li ko yàlla defal ak ni mu ñàkkee morom moo tax Minanul Baqadim dafa wuuteeg yeneen xasida yi yeneen xasida yi léeg-léeg nga gis sëñ bi di waxtaane boppam di waxtaane mayam waaye xasida Minanul Baqadim moom lépp dafa jëm ci waxtaane mayam di waxtaane kennam ki moom jëmmi sëriñ lépp rek dafa jëm ci loolu moo tax ma ne lii xaada bil muxtaari rabbi kullama talabtuhoo ma arida musallama yàlla wommatal na ma yonent bi wommatal na ma nii rek nga koy toppee ba xasida jeex yàlla jox na ma lii yonent bi jox na ma nii nga koy toppee ba xasida gi jeex jox naa hadiya yàlla jox naa hadiya yonent bi nii nga koy toppee ba xasida gi jeex mu ne xaada wommat na moom yàlla lii jox ma bil muxtaar yi ci darajaay ku ñu tànn ka rëb di sama borom mooy ku wommat jox ma ci darajaay ku ñu tànn ka lan mu ne kullama lépp loo xam ne talabtuhu maa ngi ko doon sàkku ci moom sëñ Tuubaa lu mu doon sàkku ci yàlla bëri na de xëy ne amul may gu teg benn tegut benn jàddut lépp ñëwal na ko lépp rek dotteeku na bàyyi ko ci yàlla ñëw ci moom gis nga lii xaada wommat na jox ma rabbi sama borom bil muxtaari ci darajaay ko ñu tànn naka lan ku la ma lépp loo xam ne talabtuhoo maa ngi ko doon sàkku la ma doon sàkku ci moom yëpp waaye yëpp ñëwal na seen bopp waaye nag ma arri daa ànd ko ngërëmam waaye nag musalama ma doon na ku ñu muccal ci lépp ayib gépp ayib lu demee ni woor ak istidraaj ak gàkk-gàkk yooyu yëpp nga xam ne day yàq jëf tabaarkalla noonu nee na loolu yëpp suñu borom musal na ma ci musalama ma doon ku ñu musal ci yooyu yëpp yi nga xam ne mooy dañu yàq jëf gannaaw ba nga xamee ne yàlla wommat na ci darjaay yonent bi lépp lu mu doon sàkku ci moom waaye nag mu ànd ko dem xam nga waxoon na la lillahi fii daaree ne bil maa yi yët yi bi ak bëri ridwaani saa taqoy yi léegi nag damay tënku ci di wut ngërmal yàlla li gën a màgg léegi nag bayit bi ci topp rek mu xamal la ne ngërmal yàlla loolu ma doon wut ci bayit bi de yàlla defal na ko lii xaada bil muxtaar yi rabbi kullama talabtuhu ma rida kon fii dafa waxoon ne lillahi fii daareni bil mahiyati bi akbar ridwaani bi akbar ridwaani ca la nekkoon waaye nag saa taqayudi da cee tënkoon waaye nag fii mu xamal la ne le kullama talabtuhu ma rida la ma doon sàkku yépp yàlla womman na ko ci dara yonentu jox ma waaye nag mahari daa ànd ko ngërëmam waaye nag musalama ma doon ku ñu musal nag ci gépp ayib boo xam ne day waral ak yàq jëf wala yàq ay may mu ne hadiyati bila xanaa in aw asan aw kabadi mu ne hëddiyat yi ba tey samay hëddiyaay tagg muy tagg yi may jox rasulullah alayhi salatu salaam te war loolu ko ci jëmi boppam mu doon bor boo xam ne yamini alayha daynu ak tiiru sunna safihan kafaani doona turin sawi baqi yamini alayha daynu xattin xawaaridan bi qimmatil xilli si li madinati saadi wax na ko ci barab yu bari mu ne hëddiyat yi samay hëddiyaay tagg lil Moustapha ñeel na ku ñu tànn waaye nag moom duma ko def ak diit bàyyi ko de déedéet fii abadin day sax dappat ba faw nag ëddi yi may tagg di jëmee ci yonent bi nee na day sax dàkk xam nga sëñ Tuubaa mooy juróom benn weer yi wax na day julli ci yonent bi juróom benn weer yi mu tagg yonent bi même booy xul xasida salaatu yi dañoo fees dell ak tagg yonent bi tey fu ne buñ na la juróom benn weer yi julli ci yonent bi la maanaam xasida yi day fees dell ak tagg ndax mëntu ñàkk tagg yonent bi fu mu toll mëntu ñàkk tagg yonent bi fu mu ndax xasida yi nga xam ne xasida salaatu la sax boo ci duggee da ngay gis ne day fees dell ak tagg yonent bi waxuma laa ne xasida yi nga xam ne ci weeru gàmmu la leen bind nga xam ne yooyu moom ci tagg yonent bi rek la jëm ak wax ak jukkoom ak meloom nga xam ne li may tagg yonent bi dafa wuuteeg ñu ko jaay de moom la jiitu judd ga du ko tudd même judd ga la ci xaw du ko tudd du du ko junj nii sax wala léeg-léeg mu junj ko benn benn fu ne sëñ Tuubaa taggam doo gis mu nettali yonent bi ak xaay ak kii ak Amina bi ko Amina ëmbee ak loolu loolu yëpp ngir jox xorma ak teggin nga xam ne léeg-léeg nga gis ku toog di gàmmu guddi ba fajar du fa nekkee dara lu may waxtaanee juddu yonent bi yooyu yëpp daanaka amul solo pas-pas yi romb nañ foofu pas-pas yi romb nañ foofu pas-pas yi sëñ moom dafa romb foofu fu may tagg yonent bi mooy foo xam ne bu ko fa jaaree bi dana bég ci moom waaye di waxtaanee waxtaan yoo xam ne daa daanaka teggin wut rawatina suñu jamono yi ku jog nan day gàmm te li muy waxtaanee Rasulullah nii la juddoon fii la jaar nangam nangam nga xam ne ñu teggin yooyu Sëñ Tuubaa moom du ko du ko lal même fu ne Amina nga dox ba gis ko Sëñ Tuubaa bind ko ci xasida bi lu néew la ci xasida yi turu Amina lu néew la ci xasida yi loolu yëpp fonk gi mu fonk Rasulullah nga xam ne da koy jox cër bu mat sax. moo tax man hëdiyee ci suma dee tag lii Moustapha ñeel na ko ñu tànn ka fii abadan ci luy sax ba faw bilaa an naa in ci lul benn coonoo yaam aw asan wala lor aw kabadi wala dang-dang suñu borom nee na laqad xalaqnaa lisaana ci kabadi ñun yàlla ñoo bind doomu aadama ci dang-dang yi maanaam guddi ak bëccëg bu bii sottee beneen bi taxaw na bu problème bi sottee beneen bi taxaw na nee na nag man hëdiyee yi may jox yonente bi alayhi salaatu salaam nee na amul loolu nag tabarkal coonoo yaram amut ci waaye dang-dang yi di yooyu amut ci binaa am naa añ ci lu benn coono yaram aw asam wala lor aw këbbati wala bañ-bañi tubarkalla léegi nag mu ñëw sëpp am ndëndëm di wane ne ñi fi jaaroon di liggéey yonent bi bëri na lool fekkoon naa leen fi itam bi ma leen fekk itam yoon wañ jaar rek laa jaar waaye damaa liggéey loo xam ne ñoom joteewuñ fa maanaam mënuñoo liggéey liggéey bu toll noonu mënuñoo liggéey liggéey bu toll noonu moo tax mu ñëw ne man sanna annahu yakunu abada yurdihi bi la ci ka xidmati bada nga xam ne boo ko doon firi mooy ni ma liggéeyee rasulullahi ba rasulullahi gërëm ma kontaan ci man bég ci man amul kenn ku ko liggéey rasulullahi ba mu béggee noonu kontaanee noonu donte nag am na ñu liggéey yonente bi yonente bi kontaan ba yonente bi bég ci ñoom waaye ni ma ko liggéeyalee kooku moom benn liggéey képp la ak ni mu béggee ci man nu mu ma gërëmee nu mu ci man kooku man rek kenn neen du ci fekk ndax tagg na yonent bi ba jéggi ci mboolem ñëpp aslamtu wa ci ileekal yow ma saaqidami li man xadawtu lahu kaxban wasaana foofu dane mel naa ni mel naa ni ñoom boo demee ci xasida matt na biir mun taxaa mën roppi naa leen raditu anil baqi wa an xayri xalqi wa fii mati jaawastu kaxban wasaana kon fii daf ne tolloon nag ñoom fii mu ne raw naa leen jéggi naa leen sa loxo jaawastu kaxban wasaana jéggi naa kaam ak boo demee ci xasida xataa ba foofu moom day mbébét euh, euh, maanaam jot leen ñetti étape la liggéey bi ñetti étape la waccaal maqaami maqaamal murtada annatin fi xidmatin wa kaxasaanin asil xarami boo demee nag ci e, wala xadd këram naa foofu la tolloog ñoom boo demee ci matu na biir muntaxaa foofu la waxee ne jéggi jéggi naa la kon ñetti e, étape yi rek moo am ci liggéey Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu moo tax mu ne man sann képp koo xam ne njorto na ne annahu naka luy mbir tey mbir yëkkoonu nekk na abada ci luy sax ba faw yurdihi di di ko gërëmloo moom yonent bi ku njorto loolu rek ne maanaam ku njorto rek ne moom moom moomee njorto ne moom yonent bi gërëm na ko gërëm goo xam ne dootul ko gërëmiti kenn nee na man sana képp koo xam ne njorto na a annahu naka luy mbir tey mbir yakunu dana nekk abada ci luy sax ba faw yurdihi di di ko gërëm loo moom yonent bi moom ko kenn njorto bi la sii kem gërëmloo goo xam ne badaa feeñ na ka xidmati comme ni nga xamee ne noon la yonent bi gërëmee sama liggéey bi ma liggéeyee ko ko bayit bu rungale la nag waaye nii rek nga koy firee man sànna bayit bu naqari firi la man sànna képp koo xam ne njorto na ne annahu naka luy mbir tey mbir yëkkuunu dana nekk moom kookee njorto abada ci luy sax ba faw yur diihu di ko gërëm gërëmloo moom yonent bi billati kem gërëmloo gërëm loo koo xam ne baddaa feeñ na ka xidmati comme ni nga xam ne noonu la ma gërëm ci sama liggéey yi ma koy liggéey képp ku njott rek ne maanaam gërëm ju gërëm yonent bi gërëm ak bég gi mu ci moom nee ne bu fekkee njorto nga ne rek la liggéey nga liggéey bu toll ni liggéey bu ma liggéey liggéeyal yonent bi alayhi salaatu salaam nee ne nafaytu kookee kookee njorto loolu rek ne maanaam liggéey la yonent bi ba yonent bi gërëm ko noo xamee ne maanaam gërëmewut ko kenn ba yonent bi bég ci moom noo xam ne bégeewut ko ci kenn nee na kookee nafaytu dàq naa zannoho njortom loolu mu njort njortu li dàq naa ko bi anniya man Sëriñ Tuubaa alqadim maay kii sax dàkk di ko liggéey ba faw maarifa la alqadim nga xam ne tey bu doon adresse foo ko mën a yóbbu rek buñ boo nekk liggéeykatu yonent bi kooku moom dañ naan la Tuubaa la jëm waaw adresse tubaa Touba rek lañ koy sànn ndax ku nekk xam ne ne sëñ Touba mooy liggéeykatu Yonent bi salaay tam loolu kenn du ko xëccoog moom ndax foo ko tuddee Xaadimu Rasuul rek ngay wax loolu nag marta boobu moom sëñ Touba rek ko am marta bu kawe la foo tuddee rek foo tuddee sëñ bi rek da nga naan Xaadimu Rasuul xam nga loolu dara gënu ko neex garaat boobu dara gënu ko neex rawatina alhabdul qadim seetal loolu moo tax ma ne bi anniyee man sëñ Touba alqadim may kii sax dàkk di ko liggéeyal maarifa la nga xam ne kenn rek la moom bi maa liggéey boo xam ne wanaa lottu na xaalis lii wëlis di def lu mel ni liggéey boobee ma di ko liggéeyal ñan léegi nag mu def li ñuy wax taxaddi sëpp maanaam sëmp am dëndëm maanaam day wane ne ku ñeme ñëwal géew baa ngi nii bu fekkee man nga ñëwal bërieg man taxaddi lii la ñuy wax taxaddi nga xam ne da ko def nëkkiira kullu xadim képp kuy liggéeykatu yonentu xam nga fii dan la bi année man Sëriñ Tuubaa alxadim maay ci sax dàkk di ko liggéeyal bi maa liggéey boo xam ne wanaa lottu na xan mislihi walis def liggéey bu nu toll kullu képp koo xam ne xadim liggéeykatub yonent la képp koo xam ne xadim surga ba surga la buy liggéeyal yonent bi man ma maay ki koy liggéeyal drapeau bi min ci man te liggéey bi mu koy liggéeyal maanaam lottu na liggéey ba mu koy liggéeyal keneen di def liggéey bu toll noonu te kullu xadim nag laa wax képp kuy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi rek ak doon rek liggéey bi mu koy liggéeyal nee nga ci yow mënoo ko maanaam ci gàttal lottu mooy loo mënul moo tax mu ne kookee nafaytu dàq naa sanoo njortoom bi andee man Sëriñ Tuubaa alxadim may gi sax dàkk di ko liggéeyal bi maa liggéey boo xam ne wanaa lottu naa an mis lii wali si def liggéey bu nu toll kullu xadim képp koo xam ne liggéeykatu yonent la mu ne faraawoo bégloo na ko liggéey bi ma koy liggéeyal moom yonent alayhi salaatu salaam nee na faraawoo na ko comme nag man rek man maay liggéey katam ñii liggéey ñëpp naam dañuy liggéey waaye nag man maay champion bi ndax mbir moo gis am na njiit kon nag man maay njiit gi moo tax kon liggéey bi ma ko liggéeyal te kenn liggéey lu ko ko nee na faraxawoo liggéey boobu nag bégloo na ko mu daal di julli ci moom nasara yàlla doola sool ali ci yonent bi allahu yàlla fil ali moo ki sax bi ak sahabaam yi wa man ak képp koo xam ne ak sahaba yi mu ne mu dal di julli ci yonent bi daanee ko ne yàlla yàlla dool la xéewal ci yonent bi alayhi salaam waaye nag moo fi waa këram yëpp ak ay sahabaam waaye képp koo xam ne méngoo nag yonent bi alayhi salaatu salaam ak ay saabaam rek yàlla na yàlla doon la xéwal ci moom